ak euh, du Mohamed Ndiaye bu fekkee ni teew na fileek booba ñu yéen kaay yeeg Mohamed Ndiaye. jër jërë ngeen jëf li doon raamaka watatoo ko diree ko for na yegg ca ñag ba ubbi l'observateur Sénégal mi ngi léegi ci fanweeri ka coronavirus ak juróom-benn juróomi ka ñoo feeñaa démb ci réew mi ci juróom yooyee ñett ña seeni borom bitim réew la ñu jóge woon ñibbi si ëndaale jàngoro ji ci réew mi ñaar ña ci des waaja woon ca Touba moo leen ko wàll journal bi nañu xibaar la bu ñu nangoo ci gémmiñu ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr l'observateur nañu waaye ci kaa yooyee am na ci benn kaa boo xam ne ca Grand Yoff fa la feeñe mu di benn waay boo xam ne bitim réew la newoon ba mu ñibbisee yàggul waa ji am lu mu yëg ca yaram yaramam dem sami municipal ñu def ci moom ay test gis ne moom it dafa amee coronavirus bi ne bu weesoo ñaari cas fa jotoon feeñ am na beneen cas fa feeñaa démb mu di ab cas suspect boo xam ne boromam keroog samedi la dugg Sénégal ñu def ci moom ay test gis ne moom it mi ngi covid 19 bi fii ci Ndakaaru libération dañuy wax ne ñi fi amee gom coronavirus bi ña nga feeñee ci Almadi Mermoz Grand Yoff ak ci Géejawaay cas suspect yewoon ca Ndar ñoom wane nañu ne dara jotu leen yéenekaay bi nañu waaye kenn du muudu muudu ba woon ca Tuubaa ndax moom rekk jot na walla jàngoro ji lu toll ci ñaar fukki nit coronavirus beeg ni muy lawee ci réew mi suuf soo fàttali ñu ne Sénégal ngi léegi ci fanweeri kaa ak juróom-benn juróomi kaa yi feeñaa démb ci réew mi ñoo yokk lim bi ba mu yegg foofu journal bi gis ne PCE moo am ci Sénégal plan corona émergent le témoigné nañu moo tax it mobilisation générale moo am ci réew mi lépp rekk ngir galfan yoonu corona wi ginnaaw jàngu bi jumaa it dañu leen di tëj ngir di moytu nit ñiy dajaloo la xëy ko dëggal bindal ci xëtam njëkk ne jumaa yekk hôtel yi ci réew mi dañu leen di tëj vox populi nañu kilifa réew mi namm nañu seen ngànnaay fas yéene guerre lu saf sap ak coronavirus bi ki jiite réew mi di Macky Sall jëlaat na yeneen i misir dolli ci mujjaloon bokk na ci kuréel gu ñuy samp ci réew mi tuddee ko force covid 19 léegi ko na ko ba noppit sàkku ci ministre mi ministre bu ca nekk génne benn million dugal ko ci xeex bi ñuy xeex ak coronavirus bi da des ministres ma moom Macky Sall ne dina woo opposition bi ci réew mi ngir sant leen bu baax a baax ci ni ñu ko taxawoo ànd ñoom ñëpp jàpp ci xeex bi ñu nekkee ak mbas mi dal ci réew mi moom jiit réew mi Macky Sall directeur général adjoint bu organisation mondiale de la santé mi ngi ñuy wax ci xët mu njëkk soleil national ne taxawaayu njiit dëgg la amee ci yëf yi mu ne sa président Macky Sall dogal bi mu jëloon jëm ci bañoon a delloo sa total maanaam tëj ñi ci seen i kër kenn bañ a génnati loolee yéenekaay bi nee nañu kilifay réew mi ñoo ngi ciy xalaat bu baax baax si du quotidien xibaar ñu ne réewum Chine mi ngi jàppale Sénégal ci ay jumtuwaay ngir mu mën a xeex ak bi lu ci mel ne ay kit test ay masque ak i écran facial moom si mi ñu wax loolee gis ne àdduna bi ci boppam ñoo jaxasoo coronavirus bi tax na ñëpp waaru ndax ca Burkina Faso jàngoro ju dugg na fa ba jot faaray nañu ñooy doomi Sénégal yee taggatémbe ca désert bu Mauritanie ubbil journal bi fukki sénégalais ak juróom-ñeent lañu di ay immigré am na ca ñoom ñetti jigéen Espagne lañu ne woon ba coronavirus bi duggee ci réewum Espagne ba tàmbali fay juri musiba ci la ñu ñoom jël yoonu suuf yi dugg ci seeni oto jugee Espagne di ñëw Sénégal bi ñu traversé frontière Maroc bi ak seeni wata ñëw bay dugg Mauritanie ci la kilifay Mauritanie yi tëjee seeni frontière juróomi fan ca tey nga toog ca désertu Mauritanie ba di sàkku ci njiit réew mi Macky Sall mu dimbale leen ndax nee na ci ñoom ñoo xam ne dañoo feebar bismillah mbas mi la day feebar ba waaw ma ngay tasaaroo de sur quotidien la adduna bi kay fi mu nekk nii ne kon nit ñi jànnaxee nañu lool jaaxle nañu tamit ak waaye organisation mondiale de la santé day waaw ma ngay woo Afrique la ngir ñu yeewu nañu waajal na kon musiba mbaaba kuma allahu akbar le soleil yéene kaa ne directeur adjoint wu OMS gawge waaw daal dinay xam ne ne président Macky Sall day daal dinay wane kilifa dëgg la taxawaayu kilifa la président ah. a xam ne kon jëloon na ko ne sénégalais yi nga xam ne kon dañoo nekkee Chine googe duñu leen indi ci réew mi sénégalais war nañ cee sant yàlla de soo safaal ne waaw te sénégal ci boppam nag fi nekk nii xam nga lan la war a te bu mag a mag a boo xam ne nag dana jógee kon ci askan askan docteur soo safaal yamu ca ndaxte nee na te gis nga jàngoro ji ngir ñu am am garabam de waaw gën a gàtt gën a gàtt dana am fukki weer ak ñaar maanaam atu yàlla waaw allahu nga xam ne kon moom la ujaaj ci a yoo xam ne am ah a ngir guerre ci wàllu wér-gu-yaram ndaxte ginnaaw juróom benn dogal yu rëy yi nga xam ne kon président Macky Sall jëloon ko waaw Macky Sall ni ki kon jëlati na kon ay dogal yoo xam ne yu ama am solo la la wax bu njëkk ba mooy danañuy bëgg di amal nag léegi ab réunion woo xam ne kon ci wàllum kaaraangeel la ci semaine bi gën a gàtt danañ ko amal ñaari yoon laaste président Macky Sall de daal dinay taxawal nag ab condamné ab fonds spécial la xaalis waaw ngir jàngoro ji ministre mi tamit tey léegi dana leen dagg di seen salaire waaw source aané Macky Sall kay majal lay def léegi nag day majal mastata looyam yéenay joxe yàllaay fay parce que ministre yi nga xam ne nag boobee ba léegi ni lée jàngoro jaam waaw dañu ne pata pataaral joxewuñu dara Macky nee na leen de la ministre bu ne waaw na dana woo opposant yëpp yi nga xam ne kon maanaam rafetlu nañu dogal bi nga xam ne kon jël na ko ne eh, mu daal di leen jaajëfal moom tamit am na ci ab hôpital militaire boo xam ne eh, te danañu ko defar nag ci aéroport Léopold Sédar Senghor tribune yéene kaay ne en tout de doy na waar lu juróom yu bees daal dinay amaat allahu akbar Sénégal nag fi mu nekk ni lay kon ni muy aaree boppam waaw mi ngi koy gën a yaatal de loolay dëgg dama ne la jumaa yi nee nañ leen ràpp te moom jeex na ci waaye nag mi ngi jógee ci kuréel gi nga xam ne kon moo njaboote ulema ni kon mi ngi waaw nit ñee commencé jaxasoo source année bokk na ca la sabab lim ngi yokk lool ba yegg ci ñaar fukk ak juróom ñaar yoo xam ne contesté nañ leen ci Institut Pasteur waaw dama diggante talaata rek ak àllarba lu tolloo fukki doomu aadama ak ñaar jógee nañu ci réew yi nga xam ne kon nañoo am jàngoroy corona jooje daal dugg si kon fii ci biir réew mi allahu akbar yéene plan corona émergent jàngoro ji day tax nañu tere kon julli ajjuma ba bi futam dañ koy tere léegi ba bi fut maxtaar kan yor communication bi lée ci daayira mu xatimatul xidma ca Tuuba waaw nee jotaguñu ndigal de ne julli ajjuma ji du am gendarmerie police sëñ fi de léegi ko yéene kaay ne sëriñ gànna mesere day waaw juróomi waxtu yàlla la ko gendarmerie Colobane déglu laa la wax waaye moom sëñ bi yëkkati woon na ko waaw waaw parce que sëñ Gana Messere nee na woon te yëgul woon ne président Macky Sall nii la ko waxee waaye moo ko xamoon kay xam nga ne nii ma waxee du ma ko waxee sëñ Gana Messere ma ca ndaxte nee na bis ni ki tey dee dana takku laxasaayu ñaax nit ñi kon ci jàngoro ji le le témoin yéene kaa ne xeexa coronavirus joojee waaw mobilisation générale la dee parce que nag ginnaaw église ya waaw jumaa yi tamit dee tëj nañ leen allahu akbar jullit mbooloo la ñuy la wax ci dëkk bi juróomi kaa yu bees léegi nag yóbbu na ñi feebar wéragu enquête yéene kaay ne fukki sénégalais ak juróom yoo xam ne day émigré moodu moodu waaw ña nga ca ca Mauritanie ke di ñaan dimbal ci président Macky Sall parce que waa Mauritanie dañoo tëj seeni frontière Dakar Times ne doomu jàngoro ji te féewale ne waa Chine ak waa adduna bi nag nasaraan ya waaw guerre froide a ngay dox ci diggante Chine ak Amérique ba léegi ni la libération yéene kaay coronavirus joojee waaw sali tamit dee jàngoro gars yi dañoo négatif amuñu ko alhamdulilah ci ndakaaru njaay jël jóob waaw ñañu wàlloon yëpp xool nañ leen ca almadeeg mermoz grand yof ak ca géejawaay moodu moodu ba nga xam ne nag maanaam moo indi ca tuubaa moom kese wàll lu tolloo ñaar fukki doomu aadama allahu akbar suñu koom-koom gi la fu mu barak loo ci direct news waaw daal dina cee addu dee yéeni kaay Pape Jogoy Faye bi ne Italie day waaw ci benn bis kese lu tolloo ñeenti téeméer ak ak juróom Sénégal conscient waaw nee na yéen opérateur économique yi té ñoo yées gros producteurs yi mar d'Italie waaw waaw parce dañuy jàpp béykat yi ndaw kon di leen ñett di leen bëgg a rey Aliou yemu ca ndaxte nee na la am ci mbéy mi ren passé wul juróom benn téeméeri junni ci ay laa la wax yokkute gii ñuy wax naan taux de croissance 6 pour cent waa kaw gi yëguñu ko man Aliou maa ko wax waaja yemu ca ndaxte nee na wàllum corona gilee ñoom tamit té danañ ne nag maanaam du leen tontu ci seen plainte bi nga xam ne kon moom lañ bindoon dee ñoom Mamadou Lamine Diallo waaw daal dinañuy bindaat nag seen ñaareelu lettre ci seen plainte boobu nga xam ne def nañ ko Aliou Sall bi la waaw bi na kon ñu ngi ko bind président de la chambre d'accusation waaw waaw bu de pétrole bi daa war a leer de <laughs> parce que ak lu ñu wax ci corona ji corona ji corona ji corona ji corona ji pétrole bi moom waruñu suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat ko Ndeye Mariam Ndiaye salaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm njiitu Sénégal di Macky Sall ma ngay gën a taral xeex bi nga xam ne nag ñoo ngi koy xeex jëmale ko ci wàllu feebar bi di coronavirus loolu nag moom moo tax ba démb ci ndaje conseil des ministres daal dina jël ndogal ngir ñu taxawal benn cellule nationale de crise ak benn fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid 19 loolu yëpp mu tuddee force Covid 19 autolikaay bi di ci na si gën a dugal nag ci xeex boobu waa service national d'hygiène ak tamit service civique national ba pare nañu fexe daal ba ba lépp loo xam ne askan bi dañu koy soxla ci wàllu dund gi ñu daal di koy am ba mu doy sëkk ba jolikaay bii di critique di ci yokkoon di xam ne nag moom mooy coronavirus wante ci xeex boobu mag yi waru cee wéet askanu réewum Sénégal yépp war a ànd ak moom loolu la jolikaay bii di la témoin daal di fësal suñu naataangoo ñu ngi ñuy xamal ne nag ñoom ñooy jëriñ ñi ku ci nekk mu génnee ci lu tollook benn million daal di koy dugal nag ci xeex bi nga xam ne ñoo ngi koy xeex jëmale ko ci wàllu coronavirus bi moom moom di njiitu réew mi turekaay bi di Les Échos mi ngi ñuy xamal ne dina képp koo xam ne nag leader nga nekk ci l'opposition bi daal di sant gërëm la ci li tax nga ànd ci mesures yi nga xam ne moom la daal di jël jëmale ko ci feebar boobu feebar boobu ni ñu ne faax fii nga xam ne nag moom mooy ci biir réewum Sénégal te turekaay bi di vingt-quatre heures mi ngi ñuy xamal ne ci ñetti ay bés yi nga xam ne nag moom la ñu dëgmal dinañu xam nag fan lañu feebar boobu di jëmee li am ba des daal ci wàllu matuwaay yi nga xam ne ñu ngànk lépp lu jublu ci wàllu wér gi yaram ñoo ngi koy jël daal dinañuy décidé di jël hangar des pèlerins ba nekk fële ca aéroport Léopold Sédar Senghor ngir koo xam ne da nga woon dem te bitim réew daal di dellu nag fii ci mim réew te jóge nag ci dëkk yi nga xam ne daal feebar bi daf koy lëmbee ci décision yooyu yëpp nga xam ne nag moom la njiitu réew mi jël moom ak nga xam ne ñoom ñooy gouvernement directeur général adjoint bu OMS di Ibrahima Cheikh Fall moom mi la ay décision yoo xam ne nag dañu koo war a jël fépp ngir fexe nag ba gën a taral xeex bi moom moomu nag di directeur général adjoint bu OMS daan la ciy yokk di xam le ne feebar bii nga xam ne nag moom mooy coronavirus réew Sénégal war na def kéemtulaay kàttanam ngir fexe daal bu du dugg ci gox yu bëri benn goxo nii di sali foofu moom daal dinañu fay nemmeeku ni am na keneen ku amaat feebar bii di coronavirus autorité bi di libération moom moo ñu koy yëgal duñu xamal sax ne moom samedi samedi bii passé nag la dellu siwaat nag fii ci biir réew mi moom ba ñu liñatoo yaramam ci la ñu xam ne dafa am feebar bii nga xam ne nag moom mooy euh, coronavirus wante yeneen test yi nga xam ne nag dañu koo def ci ay nit yu ñu doon jiiñ ne dañoo am feebar bi ci diwaanu Ndar Louga Kaffrine Kapskiring loolu daal dañoo mujjee négatif wante Modou Modou bi nga xam ne nag moom bi fa nga xam ne moom mooy ca Touba moom dong de daal dinay wàll ci lu tolloog ñaar fukki nit ba léegi ci xeex bi nga xam ne nag ñoo ngi koy xeex jëmale ko ci feebar bii nga nag moom mooy coronavirus tas ginnaaw jàngu bi nga xam ne nag daal di nañuy tere amal ay messe ak tamit chemin de croix ñi nga xam ne nag ñoom nekk imam ulama yi ñoom yëpp daal ci biir jàkk yi daal